bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci weeru tedd wi rawatina ci fan yu mujj yu màgg yi nga xam ne ci lañu nekk di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala li mu làmboo ci aw yiw ak i ngeneel ñu màng ci lu baree baree baree bare di ñaanal kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla bàyyi nu ko fa ci sunu kanam lu yàgg lool may ku wér ak kàttan ba fi mu bëgg a yeggalee liggéey bi mu yeggalee ko fa te ñu ànd kook moom ci na mu gën a rafete gannaaw loolu suñu waxtaan tey day jokk ci waxtaan wi ñu mujjoon a yéen waaye da am na jokko it ak eh, li nga xam ci lañu nekk muy koor gi dañoo nekkoon doon waxtaan ci tomb li ñuy tuddee kóolute eh, ñu defoon ko ñaari xaaj kóolute gi dox ci diggante jaam bi ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak kóolute yi nga xam ne mooy dox ci suñu diggante ñun jaami yàlla yi ci waxtaan wu jëkk ba kon waxoon nañ ci xaaj bu jëkk bi muy kóoluteeg gi dox ci diggante nit ki ak boroomam ak gi dox ci diggante nit ki ak yonent bi sallallahu alayhi wa te kóolute yépp lañu war a sàmm waaye gi gën a mat a sàmm mooy diggante gi dox ci diggante yàlla ak jaam bi ak yonent bi ak jaam bi ñox màgg màggaay gi mu gën a màgg xam nañ ne kóolute ci ragal yàlla la bokk wor ci ñeme yàlla la bokk te koor li ëpp solo ci liñ ci jànge mooy ragal yàlla moo tax ci aaya ba la mu ko daaneele mooy yàlla dafa farataal ci yenn koor ni mu ko farataale woon ci ñe leen fi jiit woon ndax ngeen ragal yàlla kon nit ki da ci tàggat boppam ci ragal yàlla jéem koo dëgëral saxal ko ci xolam jëmbat ko ci ay cëram waa kóolute nag mooy li nga séq ak ki nga séqal lala la ca war nga def ko loolu la ñuy tuddee kóolute loolu kon eh, suñu borom moo digle ne eh, nañuy sàmm kóolute yi te bañ koy war inna allaha yaamurukum an tu'addu l-amaanaati ilaa ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkuma bil adl inna allaha ni'ma ya'izukum bi inna allaha kaana samian basira neen yàlla digal na leen ngeen di delloo ndenkaan yi di ko jox seeni boroom euh, képp ku ngeen seqal kóolute ngeen def ca la leen ngeen def ngeen matal ko bu ngeen dee atte nit ñi ngeen atte leen ci maandu yàlla day li mu leen di digal di leen ca waar eh, lu am solo lu baax lool la ci yéen te yàlla mu ngi dégg lépp lu lépp lu mën doon di gis lépp lu mën a doon ñu war koy bàyyi xel kóolute yi nag bari nañu daanaka dundu nit ki yépp lépp rek loo ca xool rek am na kóolu kóolutee nga ca biir ñu tàmbalee ko ci kóoluteg wax kóoluteg waxtaan waxtaan kóolute la maanaam ki ngay waxal am na kóolute gu dox ci sa digganteek moom mooy li nga koy wax moom loo koy jottali la kon lay kóolute ga mooy na ko la nga koy wax na na nga ko na nga ko wax la am la nekk na ko ko wax nga dëggal ca wax ja te maandu ca kon kii wax te la muy wax wérut mbaa mu dugal ca lu ca war te bokk ak ñàkk feeñ ca wax ja kon kooka sa ba ngay wor ka muy waxal moo taxoon seydina abubakar siddiq radiallahu anhu waxoon ne a sidqu amaana wal kazibu xiyaana mu ne wax dëgg ci kóolute la bokk waaye wax lu amul nag wor la ndax ki ngay waxal moom bi nga waxee moom rek jàpp na ne yow li nga wax noonu la demee bu ko defee mën na caa sukkandiku ba def mbaa mu wax leneen su fekkee demewul noonu nag kon war nga ko bi ci topp bokk na ci kóolute yi kóolute yi dig dige dige ak nit euh, lu ngeen lu ngeen mën a dige rek nga xam ne tënk ko ci waxtu ak jamono ne ko bu jamono sàngamee ma defal ma def ak yow nangam ngeen jëflante nangam kon loolu kóolute la goo xam ne bu waxtu wa egsee la ngeen cee diggante woon war nga koo def Euh, war ko kon mooy waxtu woo jot nga ñàkk def la ngeen diggee te ñàkk def ga doon loo xam ne sa coobare la du loo la du loo sëñta loo loo loo ah, loo am ngànt bokk na ci kóolutey kóolute xam-xam euh, ki yàlla dénk xam-xam loolu kóolute la ci diggante kóolute la gu ko yàlla dénk mooy mooy xam-xam bi ko yàlla jox yàlla da ko caa wóolu am lu mu ko ca sant ci digganteem ak moom am nu mu ko ca sant ci digganteem ak jaam ñi kóolute ga kon mooy la muy xamle maanaam xam-xam ba na wér la muy xam na nekk wax xam-xam boo xam ne bu wér la te bu koy joxe na ko joxe ci anam gu mat anam gu leer naññ goo xam ne du am euh, ak ay wuute ay ay wax lu bokkut ak du ca nëbbu dara du ca nëbbu lu mu war a xamle te itam du ca jeng du ca dugal lu ca bokkul waaw du ca doxe bakkan du ca doxe bànneex nga xam jëmmi xam-xam bi rek bu sell bi lay joxe na mu ware te maandu ca te dëggu ca te yàlla tax kon bu fekkee ne xam-xam bi nit ki li ko yàlla xamal mu war koo jot li nëbbu na ko ngir njariñ lu tax mu bañ koo wax Euh, kon boobaa kon war na bu fekkee itam jàng na ca maanaam ñàkk na ca maandu boobaa loolu itam ak ak war la euh, kon boroom xam-xam yi am nañu kóolute kóolute am na kóolute dox na seen digganteek ak yàlla mi leen jox xam-xam bi te sant leen ñu jottali ko waaye kóolute dox na ci digg seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom nañu war a jottali xam-xam bi moo tax ñu wax ne boroom xam-xam yi ñooy wuutu yonent yi li yonent yi li yàlla doon jot li la yonent yi ba fi jëmmi yonent yi jógee te xam-xam bi des fi ña ko xam ñoom la ci yàlla wóolu dénk leen ko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

ba delloo ko ka ko ko dénkoon wala ña ko ko dénkoon dara bañ caa sikk ba dara bañ caa des bokk na ci kóolute yi kóoluteeg séq ab liggéey ki ko séqal ab liggéey am lu loo ko war a liggéeyal mu am lu mu la war a jox moom it mu wecc liggéey ba loolu kóolute la ci ñaar ñëpp kii liggéey kon war naa def liggéey ba nañ ko ko sante ak na ko kay liggéey lu bëggee ba mu sell mel na mu na mu war a mel mu bañ ko ca wor ci la muy waxanteen moom bañ ko wor it ca la muy def waaye ki nga xam ne moom lañ mooy liggéey lu itam lay àq kay liggéey mu jox kooku moom itam ba mu mat loolu itam ci kóolute yi la bokk bokk na ci kóolute yi kóolute ak àtte ki yàlla jox xam-xam ak wàccuwaayu mu war a àtte diggante nit ñi moom it am na kóolute bu dox ci digganteem ak euh, loolu muy def mu war a àtte xaqullaahi taala àtte dëgg goo xam ne dana farlu kem kàttanam ci xool ñi muy àtte kenn ku nekk euh, na mbir ma demee mu fexe ba xam ko xame wu leer nañ xam sukkandikaay yaag ya ne ci biir yépp ya ca aju yépp mu xam ko ba xool la nga xam ne mooy dëgg ga mu àtte dëgg ga ka nga xam ne moo am àq mu jox ko àq ka nga xam ne moo tooñ daan ya ca war mu teg ko ko loolu itam euh, kóolute la gu diis koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi na ñii àtte ñett lañu ñaar ñi sawara la ñuy dem kenn ki mooy dem àjjana ñi dem sawara ñaar kenn ki mooy ki ki xamul dëgg ki xam dëgg te àttewu ko ak ki ko ki xamut ki nga xam ne gëstuwut dëgg jéemu koo xam ba noppi àtte kii dem àjjana mooy ki xam dëgg yi atte ate ko bokk na ci kóolute yi kóoluteeg kilifteef waaw ki ki nga xam ne yàlla moo ko teg ci kanam nit ñi mu ñu wóolu ko def ko muy seen njiit ñu am luñ ko dénk ci mbiri xeet wi mu war koo taxawe war koo lijjanti loolu kóolute gu diis diis la koo xam ne moom itam képp ku ko yàlla jox ak nu mu ko ko mën a joxe ak anam ak lu mu ca mën a yor la ko ca war ci sàmm ak maandu ak farlu ak dëggu war na ko caa def bu ko defut dana ca am euh, daan yoo xam ne yu diis diis la ko yàlla jégalut ak ñam ko seqal kon yëpp ay xeeti kóolute la euh, euh, kon mën nañoo wax ne bu ñu xoolee jëflante yi itam xeeti jëflante yi jëflante bu nit di jëflante moroom ma rek kóolute am na ca mooy yow ci sa bopp ki ngay jëflanteel bul ko wor maanaam bul ko nëbb ci sa bopp maa nga nëbb ko ca mbir ma ngeen di jëflante loo xam ne su ko xamoon bu ko leeroon la muy nangu ci sa diggante moom du ko nangu loolu kon di di jëflante ngi nëbb ko ca nëbb ko ca mbir ma ngay jëflante maa nga nëbb ko ci sa bopp loo xam ne bu ko xamoon taxawaay ba mu taxawee ca na ngeen di jëflante du ca taxawee noona loola kon ak war lañ koy tuddee yonent bi sallallahu alayhi nee na man rachana falaysa minna képp koo xam ne war nañu ci biiru jëflante nëbbu lu ñu waroon a xam euh, mu nëbb ko ba nit jox ko lu dul àqam baa mu teg ko fu mu nekk nee na loola euh, ku ko ku def loolu bokkoo ci ñun xeetu xeetu xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal loolu lu mat a bàyyi xel la muy kóolute lu yaatu la lu màgg la loo xam ne e, ci la dund gi aju suñu digganteeg suñu boroom ak yéwénam waaye yéwéen suñu dund suñu diggante itam ci la aju ci buñ ko sàmmee waaye xajam-xajam ak jafe-jafe it tey juddu bu fekkee sàmmuñu ko kon yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy sàmm kóolute ñi ñëw ci xutba bi nga xam ne moom la imaam ji war a xutba tey jii incha allahu taala ci xutba bu njëkk bi dafa sant yàlla mi nga xam ne moo def xeetu sayidna muhammad maanaam jullit yi ñuy xeet wi gën ci xeet yépp mu defal ko ci ay jàpp ndal yu koy tax a texe tey ak ëllëg loo xam ne defalu ko xeet yi jiitu woon may ko itam ci xeeti jaamu yàlla yi ay jaamu yàlla yoo xam ne defal na ko ci ay ngëneel yu mag a mag a mag yoo xam ne ña ko jiitu woon amuñu lu mel noonu mu ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def loolu waaye itam di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne fa ko yàlla teg ci kawe ak daraja kenn yeggu fa ku dul moom mu ne ginnaaw loolu nag nañu xam ne weeru koor wii mi ngi jeex ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi kon nag nañ feddali suñuy laxasaay te farlu bu baax a baax ci li nga xam ne moo des ci weer wi ndax li ci des bareetul nee na kon nañ góorgóorlu bu baax fexe wut ab yóbbal bu mag a mag ci aw yiw ci li des ci weer wi balaa jeex nee na nañu góorgóorlu bu baax a baax ci dàkk guddi gi nga xam ne moom lañu tuddee te bu ñu delloo ci xadis yi yonent bi solo alayhi wa wax ñi ngi ko gën a yaakaare ci fukki fan yi mujj mu ne yonent bi te ne guddi goo guddi gu màgg a màgg a màgg la goo xam ne e, julli ci guddi julli ci guddi googu moo gën julli ci junni weer yoo xam ne guddi googu nekkul ci biir nekku ca waaw kon jaamu yàlla goo def ci guddi gi daal tuyaaba ja nga cay am mooy ëpp nga tuyaaba nga jaamu woon junni yàlla junni weer eh, yoo xam ne laylatul xadr bokku ca junni weer nag <coughs> man na juróom-ñett fukki at ak weer loolu kon genn guddi rek nga jaamu ci yàlla am ci yool bu tol noonu lu rëy rëy rëy la mu ne kon guddi googu loo ak may la loolu hadiya la ji yàlla jox xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa tey xéewal gu ba bari gu màgg a màgg gu mu xéewale xeet wi kon nañ góor góorlu ci jéem a dàkk jéem koo dàkk te buñ te buñ ci amee njort lu dëgër ñu góorgóorlu ca mu ne nag yonent bi sallallahu alayhi nee na <coughs> yàlla moo tànn bëccëg yi jël ajjuma def ko muy bëccëg bi gën ci bëccëg yi bi euh, bëccëg yi bëccëg yi euh, ayu bis gi tànn weer wi ci at mi def weeru koor mu nekk weer wi ci gën mu tànn guddi yi def laylatul qadr mu nekk guddi gi gën ci guddi yi mu tànn barab yi def jàkka muy barab bi gën ci barab yi mu ne kon nag na sàkku guddi gi gën ci guddi yi te sàkkoo ko ci weer wi gën ci weer yi te sàkkoo ko ci euh, euh, ci ci te te defe ko ci barab yi gën ci barab yi mooy mooy nañ farlu ci jéem a xam laylatul xadr te jéem koo gëstoo ci biir weeru koor rawatina ci fukki fan yi te buñ ko xamee ba di ko màggal di ko màggale ca jàkk ya loolu kon la wax ci xutba bu jëkk bi xutbab ñaareel bi def cee sant yàlla mi nga xam ne moom du fi jóg waaye leneen lu fi nekk dana ko fi jële moo fi du jóg waaye moo fi jële leneen lu man di doon dana mujj moom doo nga fiy des lu mu fi defoon dana ko fi jële ba mu des jëmmam mu ne mi ngi sant yàlla moomu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne mooy ki gën ci bindee fii te gën a màgg itam ci yonent yi nee nag nañ xam ne weeru kor wii daanaka jeex na jeex na ba noppi weeru kori lee mu ñëw kon li des ci weer yooyu kas néew nañ ci gën a farlu gën cee góorlu wut ci ab yóbbal bu mag a mag bu ñuy jariñ bu ëllëgee nee yàlla moo sàkk weer wii ci asamaan moo ko sàkk ñu gis ko muy suux ak a xëy bu génn ci guddi gi ba yàgg mu suux di ñu koy gis guddi gu jot ba yàgg mu xëy mu xëy maanaam mu am bis ay ñaari fan ya ca mujj ci weer wi kenn du ko gisati du ko gis guddi duñ ko gis bëccëg muy mu mu mu xëy dugg ci pax ne loolu dañ cee war a déggee ne kon ku fi nekk di dund set dund day jeex dañ ciy déggee sax ne àdduna jëpp day fi mujj jaax rek loolu nag bu amee kon nit war nay bàyyi xel ci ci ci ci dunduk boppam gi di bàyyi xel ci jeexu àdduna di waajal alaaxira nee na kon nañ bàyyi xel bu baax ci suñu bopp te góorgóorlu te farlu nee na nag yonent bi sallallahu alayhi wa nee na weeru koor wii mi ngi mi ngi dem waaye képp ku ci defoon lu ñaaw weer wi dana la seede ci kanam yàlla ne defoon nga fi lu ñaaw képp ku fi defoon lu baax bu demee ci yàlla dana ko seede diw sàngam defoon na lu baax kon nag ku defoon lu baax ci weer wi santal yàlla te góorgóorlu ku defoon safaan tuubal te rëccu te fas yéene li ci des doo ci defaat ab safaan ndax boo demee bu demee ci yàlla bu lay seede sedd sa nekk lu rafet nee na nag <coughs> Euh, nañ ko tàggu nañ tàggu weeru koor te na suñu xol tooy ci tàggoo bi te nañ yërëmtalu wax ko ne ko yow weeru koor yaa ngi dem de waaye wéetal wéetal nga ñu yow nag yàlla bu la yàlla wéetal euh, kon na nga demal ak jàmm te yàlla nañ dajewaat wax ko kàddu yu demee noonu ci tàggoo bi euh, nee na it nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru koor dañ koy aj ci diggante asamaan ak suuf dee ko jàllale mu yéeg ba yàgg fa ñu dañ ci jëf ya jëf yu baax ya lu dul bu nit ki joxee muurum koor kon ki woor kooram balaa suñu borom a nangu kooram day joxe muurum koor chahru ramadaana muallaqun bayna alsamaai wal ard laa yurfaxu illa bi zakati alfitre loolu nag ab soñña la kon ci Eh, joxe muurum koor ndax day laabal nit day laabal koor gi maanaam sikk yi nekkoon ci koor gi ak ak eh, ndes yi ci amoon ak ayib yi da koy dindi ba mu set wicc ba noppi day dimbale itam ñi nga xam ñoom lañ koy jox kon lii daal mooy li nga xam ne moom la imaam bi nara xutba nee na mi ngi ñaan sunu boroom boole ci ñi muy nangul eh, te boole ñu jéggal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ay الحمد لله الذي حض خص هذه الأمة بما أراد وفضلها على الأمم تفضيلا وهيأ لها من أسباب السعادة ما لم يجعل لغيرها إليه سبيلا وآتاها من فواضل, فواضل العبادة ما اختارت به أجرا جزيلا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه ذروة الشرف الذي لا يخلق له مهيلا أما بعد فيا أيها الناس فهذا شهر رمضان قد أومأ إلى الرحيل ولم يبق إلا القليل وبدت شموس شموسه على أطراف النخيل فسمروا في العشر الأواخر عن ساق الجد والاجتهاد wa tazawwadu min fadliha anfasa zaad waltamisuu fiha laylata alqadri alazimati shaan wajtahiduu fi talabiha qadra alimkaan asaa an tanaaluu fadlaha almuddaxar فإن قيامها أفضل من عبادة ألف شهر فهذه هدية من ربكم الأعلى وما أعظمها وغنيمة من بها عليكم المولى وما أكثرها qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha subhanahu wa taala ixtaara al ayaama fa jacala minhunna aljumuata waxtaara shuhuura fa jacala minhunna shahra ramadan waxtaara allayaali وجعل منهن ليلة القدر واختار البقاع وجعل منهن المساجد فاغتنموا رحمكم الله خير ليلة في خير شهر في خير بقعة اختارها المولى وزينوا ذلك بأنواع القربات التي تحمد قولا وفعلا الحمد لله الذي يزيل ولا يزال الذي حكم على القمر بعد الكمال بالمحاق والأفول وقد دل ذلك على انقضاء الآجال وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره من سهو وغفلة وذهول وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم عبد وأهوم رسول أما بعد فيا عباد الله قد علمتم أن رمضان راحل ولم يبق لسوال إلا الحلول مضى وانقضى كأنه ما كان شهد على المسيء بالإساءة walil muhsini bil ihsan fa zawwidu bit taa bit taati yaa ixwaan fa zawwiduhu bit taati yaa ixwaan wa adriku ma baqiya min shahrikum bil ittihaad wa waddi'u shahrakum haadaa وقولوا لا أوحش الله منك يا شهر القرآن والغفران ليت أيامك علينا بالدوام تطول فهنيئا لمن هو فيك مقبول وفي الحديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض laa yurfau illa bi zakati alfitri waffaqana allahu lilqiyaami bi muraati xuduudi haada alshahri walqiyaami bi xurmatihi wa taqabbala minna wa minkum alsiyaama walqiyaama وأنا لنا ولجميع المسلمين الحظ الوافر من مغفرته ورضوانه وحفظ وحفظنا وحفظ آل القديم بما حفظ به الآيات والذكر الحكيم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين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 akbar أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين مانية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها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 ثم إن علينا حسابهم الله asalaamaaleykum asalaam